أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله والصلاة والسلام على الواسطة العظمى سيدنا وحبيبنا محمد بن عبد الله وعلى آله الطيبين الطاهرين وصحابته الغر الميامين ورضي الله عن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 E, nag wi lañu peese su nag wi tolloo ci e, deux cent kilos e, deux or lay lay peese ñu peese deux cent kilo or peese ko lu tolloo fukki yoon loolu itam jox départ xale bi mu amee ci alal yu bari ngir ma yàlla ak itam topp bu mu topp ndigalu ñaari waajuram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 wax ne ne wax boobu la ko yàlla yedde wan ko itam ne ko sa xam-xam barewul ci la ko déeyee nag moom yàlla ne ko aniti l baxra fa innaka tajidu ala shaatii l baxri xuutan fa xuzhu wadfaahu ila fataak summa zim shaati al baxr fa ida nasita al xuut wa haraba minka fa samma tajidu al abd as saalix yàlla wan ko ne ko am na sama benn jaam bu yiw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 ku mel ni qataa qataada wax na ne ubay ibn kaab wax na ne géej googu majma al mu ngi ci afrique e, ku mel ni muhammad ibn kaab moom daf ne Tanja la mu di e, dëkk boobu nga xamante ni e, ci Maroc la bokk ci sës rek ci méditerranée mu di al bahr mutawassit ñoom ñaar dox nanu ba àgg ci benn doj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 loolu ab tukki la ba mu waxee fa faratu minkum lamma xiftukum ñaareelu tukki ba moo di keroog ba muy dem ci tuuru Sinaa waaw fa lamma ataaha nuudiya min shaati il waadi al kooku itam ab tukki la ñetteelu tukki ba moo di safaru taalib mooy ba mu ñëwee ba woo firawna ba firawna bañ te mu wan ko miracle yu fés te leer firawna bañ